mbokku internet yu ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar TV dal leen ak jàmm li gën a fës ci xibaar yi rek euh, bokk na ci ki nga xamante ni moo di soxna Aida Diallo ak Serigne Saliou Thioune gannaaw ba nga xamante ni ñoom ñaar ñëpp euh, fi nga xamante ni moo di ca Medinatul Salaam lañuy gàmmoo dinañ daal di wax namit ci li nga xamante ni moom moo di. Euh, propos yi euh, Emmanuel Macron daal di yëkkati woon mu merloo ñu bëri ba tax nag ki nga xamante ni moo di xalifa Thierno Madani Tall moom nag daal dina ci euh, yëkkati ay euh, kàddu dinañ wax tamit ci li nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang moom Pape Alé Niang nag gannaaw livre am bu mu publié woon ba mu jural ko ci ay coow ci digganteem ak waa kuddu moom nag juge bi daal dina joxe li nga xamante ni moom moo di verdict bi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 mbokk internet yi ñu bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar dal leen ak jàmm comme ni ñu leen ko waxee woon ci njalbeen ba rek dañ koy euh, tàmbalee nag ak li nga xam te ni moom moo di euh, gàmmu bi gàmmu bi nag euh, bi nga xam te ni moom moo ñeel cantaakun yi gannaaw ba nga xamante ni ñoom ñëpp dañoo daal di jël dogal daal di gàmmu jee foofu ci Medinatul Salaam kii di Serigne Saliou Thioune moom nag daal di woon def annonce bi gannaaw ba mu demee xel kom ba tax na tamit ki nga xamante ni moom moo di euh, soxna Aida Diallo moom tamit dina daal di euh, célébrer gi euh, foofu ca Medinatul Salaam ba tax na sax yéenekaay bi di l'observateur moom nag daal dina prédire ay risques d'affrontement ci ñi nga xamante ni moo di ci diggante taalibe yu Serigne Saliou Thioune ak soxna Aida Diallo nga xamante ne ñoom ñëpp dañuy célébrer gàmmu gi foofu ca Medinatul Salaam. ba tax na ñaari camp yëpp daal nañu déposé li nga xam te ni moom mooy di autorisation foofu ca préfecture bu Mbour. ba tax na Serigne Saliou Thioune moom nag euh, dafa daal di euh, bëgg euh, célébrer li nga xam te ni moom moo di gàmmu gi foofu ca place publique bu dëkk boobule ba tax na sax moom. Euh, ki nga xamante ni moom moo di euh, papam euh, di Cheikh Béthio moom nag noonu la ko doon defee ci li nga xamante ni moom moo di gàmmu gi ba tax na sax moom Serigne Saliou Thioune moom nag daal na wax nag ni que moom du sedd benn yoon ci li nga xamante ni moom moo di provocation wu taalibe soxna Aïda Diallo yooyu léegi ba tax na benn jëwrinam bu nekk foofu ca Medinatul Salaam daal dina wax rek ni que Medinatul Salaam nag euh, santul Diop santul Ndiaye encore moins Diallo dañuy wax nag ci li nga xamante ni moom moo di ingénieur géologue yi nga xamante ni daal dinañu joxe benn information rek ci li nga xamante ni moom moo ñeel palais présidentiel bu Sénégal ñoom nag lu ñu daal di xam ne rek moo di palais présidentiel bu Sénégal nag euh, dafa daal di menacé wu débul éboulement maanaam euh, pale bi euh, mën na euh, effondré wu à tout moment ndax nag ñoom lu ñu daal di xam ne rek moom moo di dañ ko daal di tabax ci li nga xamante ni moo di benn roche boo xamante ni mën na effondré wu à tout ñoom nag loolu lañ daal di xamle bu ñu noppee ci loolu nag dañuy daal di wax ci journaliste bi di Alé Niang moom nag nga xamante ni nii dañ ko daal coupable moo di moo Niang moom tamit nekk na euh, coupable de complicité ñoom ñaar ñëpp nag daal dinañ leen euh, condamné à trois mois de prison avec euh, sursis ba noppi dinañ daal di fay li nga xamante ni moo di amoon bu deux cent mille francs ku ci nekk rek ba tax na sax ñoom liñ leen di euh, toppee rek moom moo di affaire euh, boobu le waaye nag ki nga xamante ni moom moo di Nafi Ngom Keita moom euh, tribunal bi nag dafa daal di déclaré wu incompétent ba tax na sax ci li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum diffamation ba tax na bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Le Soleil Pape Alé Niang ak Mody Niang le ñoom ñaan nag dañoo daal di war a fay li nga xamante ni moom moo di ay dommages ak intéret à hauteur de dix millions ba tax na Pape Alé moom nga xam daal di woon euh, publier ab euh, ouvrage nga xam te daal dina koy euh, intitulé scandale au cœur de la république mu am ci parti bu nga xamante ne ni le dossier coude la ko daal di tuddee woon mu daal di si def ay révélation yu nga xamante ne ni dafa daal di doy waar looloo waral ñu daal di koy toppee li nga xam xamante ni moom moo di diffamation bu ñu noppee ci loolu dañuy daal di wax ci li nga xamante ni moom moo di coowal Aliou Sall ak li nga xamante ni moo ñeel pétrole bi ak li feeru Petrotim nga xamante ni euh, loolu moom moo waraloon euh, sax euh, coowam boobu ak ki nga xamante ni moo di Frank Timis beneen spécialiste bu corruption moom nag daal dina def ay révélation yu doy waar ci ki nga xamante ni moom moo di Alioune Sall moom le ba tax na nag Alexandra Dji moom nag daal dina nekk spécialiste ci li nga xamante ni moom moo di corruption ci secteur pétrole moom nag daal dina def ay révélation yu bees ci li nga xamante ni moom moom moo ñeel pétrole euh, sénégalais bi euh, ba nga xamante ne ni moom moo di affaire pétrole tim euh, si nga xamante ne ni sax Alioune Sall jamono ji ba tey setagu ci ba tax na moom lu kàddu yu mu daal di yëkkati rek moom moo Sénégal dafa daal di euh, joxe gratuitement euh, ñaar ci ay euh, principaux blocs gaziers wam ci ki nga xamante ni moom moo di Franck Timis Franck Timis nag daal di koy jaayee li nga xamante ni moom moo di ay milliards de dollars yi nga xamante ni sax dafa daal di feesal ay poosam loo xamante ni sax dina dundal ay doomam dundal ay euh, sëtam à maanaam euh, ñoom ba ci euh, sëtam yi war a judduwaat sax ñooñu dootuñu soxlati li nga xamante ni moom moo di xaalis ndax nag ñaari bloc gazier yi nga xam te ni Sénégal daal dina ko koy jaay ci ay euh, ci pétrole bi rek euh, daal moom daal dina ko jaayee loo xam te ne ni mën na ko dundal dundal ay doomam ba ci ay sëtam sax à loolu nag la femme bi daal di euh, xamle ci li nga xam te ni moo di journal bi di Les Échos ñu wax nag ci li nga xamante ni moom moo ñeel kàddu yi Emmanuel Macron daal di yëkkati woon ba tax na ki nga xamante ni moom moo di euh, Thierno Madani euh, Tall tax na ki nga xamante ni moom moo di euh, Thierno Madani Tall moom nag daal dina yëkkati ay kàddu daal di koy jëmale ci li nga xamante ni moom moo di occidentaux yi gannaaw profité ci occasion bi nga xamante ni moo di clôture bu bourde bi tax na xalif Thierno Madani Tall moom nag daal dina am lu ko métti ba pare daal dina condamné waxtaanee euh, bu baax li nga xam te ni moo di kàddu yi euh, Emmanuel Macron euh, daal di yëkkati moom nag daal dina fàttali ki nga xam ni moom moo di Emmanuel Macron ni bu fekkee am na nit koo xamante ne nii fii ci kaw suuf daal dina mérité li nga xamante ni moo di prix Nobel de la paix kooku nag dañ ko waroon a tabb ki nga xamante ni moom moo di sangu-sang yi di yonent bi sallallahu alayhi wa salaam ci li nga xamante ni moom moo di démarche ngir jàmm ndax nag nekkoon na nit ku nga xamante ni nii tey bu sañoon ñëppay am jàmm ba noppi eh, ci li nga xamante ni sax moom moo di mbëggeelam eh, ci eh, moromam ak li ni moom moo di yéeneem ci li nga xamante ni moom moo di protéger ñi nga xamante ni ñoom ñoo di néew doole yi surtout nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pauvre yi loolu nag bokkoon na ci li nga xamante ne ni moom la doon doxee di ko jëfee ba noppi moom Thierno Madani Tall moom lay daal dina demandé li nga xamante ni moo di occidentaux yi ñu daal di xoolaat li nga xamante ni moom moo di seen approche impérialiste euh, bi nga xamante ni nii euh, dañoo bëgg a imposer li nga xamante ni moom moo di euh, seen culture ba noppi daal dina wax rek ni que violence verbale moom moo nekk à l'origine bu violence physique bu ñoo jógee foofu nag dañuy daal di wax ci ki nga xam te ni moom moo di Serigne Habib Sy Dabakh moom nag daal dina uh, yëkkati ay uh, kàddu uh, di ko jëmale ci li nga xam ni moom moo di jamono ji li xew muy mariage góor jigéen ñi ak li moom nag daal dina constaté rek ni que dafa bëri ba tax na daal dina interpellé li nga xam ni moo di président de la république ba tax na bu ñoo sukkandikoo ci ki nga xam ni moom moo di Serigne Habib Sy Dabakh rek moom lu mu daal di di euh, wax rek moom moo di mënuñu concevoir li nga xamante ni moo di euh, dëkk bi di euh, Sénégal nga xamante ni di Hadji Malick Sy fii la juddoo Serigne Touba fii la juddoo ki nga xamante ni moo di Cheikh bu Mohamed fii la juddoo Limaamu Laay waxi noppi ñoom nag ñi gis di seetaan ay jëf li mel lu ci mel ni ay góor jigéen di fi yu moom daal dina interpeller directement li nga xamante ni moom di euh, Macky Sall ak ki nga xamante ne ni moom moo di président bu assemblée nationale di Moustapha Niass ak ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye euh, ndax nag ñoom. ñoom ñoo war a euh, gérer li nga xamante ni moom moo di dëkk bi daal di jël ay matuwaay yu mat sëkk ci li nga xamante ni moo ñeel góor jigéen yooyu le ndax nag daal di leen leen a fàttali rek ni que ñoom bu ñu lépp lu ñu mënti def fii rek keroog yomal xiyaam dinañu rendre compte ci kanamu suñu boroom. ba noppi moom nag daal dina koy jeexalee rek ni que bu ñu deful dara moom sëriñ Habib daal dina prédire benn avenir bu sombre ngir dëkk bi ak àdduna bi yépp mbokku internet yooyu cant ngërëm ñeel ni leen lañ leen indiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci seeneen xibaar.